d'accord ki ngeen di xeexal est-ce que xeex bi ñor na ko Karim Meïssa Wade il reste à l'étranger la moo ko tënk jamono ji on est à six mois de la présidentielle bu ñëwee lan lay wax sénégalais yi naka la koy waxee est-ce que sax xamante na les réalités de de ce pays même ces militants kontaan nañu am na ku ma ne sànq koo xam ne il n'appelle pas il ne parle pas il ne fait que pondre des communiqués comment est-ce qu'il veut que ñu conduire ko euh, à la présidence en en euh, moo la wax loolu mhm. ah militant bu doy waar la. ci naka xam nga lu tax ma nee li militan bu doy waar la man li ma wóor bu wóor mooy man mii li Karim Wade xam. ci hmm. réew mi ak ni réew mi di doxe xaw ma ko te man maa ngi ci biir réew mi yow mi wóor na ma ni li Karim Wade xam xamoo ko. mais nan la koy xamee. parce que Karim Wade. xam nga yow li li ni mu koy xamee mooy. Macky Sall il a fait deux fois le Sénégal avant c'est l'homme absent le plus présent ni mu ko xamee mooy. non non non présence physique dafa am solo nguuda. non présence physique mooy lan euh, yow yow supposons. Euh, dem ci gox yeeg goxaan yi xam difficulté sénégalais yi wax ak ñoom échanger non supposons nga ne yaa ngi xombol pour nga xam xombol da ngay dugg di laaj nit ñi mhm. pour nga xam lan moo xew xombol waaw yow boo amee xombol ki nga xam ne moo la fi toogal nga xam ne même euh, chef de village yu koñu xombal lu mu reere Karim dina ko xam. non non non bokkul. bokkul nguur ne ma di ah, pas yow tamit. non dama lay wax loolu yam aussi. non non dama wax ni pour xam nga dégg ma ne xamul lu xew ci réew dama la ne. ki gën a xam Karim Wade actuellement li xew Sénégal ak li fiy dox ak mbir yi nu muy mi ngi waxtaan. képp ku fi responsable. boo <laughs> yow sax boo moytuwul suba dina la woo. léegi kañ lay <laughs> mënumaa wax ci ci ci plateau bii que Karim Wade demee lay ñëw wala ginnaaw. soo mais est-ce même. non mais loolu. am na loo wax sànq nee nga ma moom bëggul ñu rétablir ko euh, pour bokk ay élection wala dara deram la bëgg setal. waaw boobu moom que même li ngeen koy. mais il est il est convaincu maintenant xam nga dafa am assurance. Mhm. ki nga xam ne moo moo doon jéem a junj ni. Mhm. dafa dafa sàcc. ñooñu ñi ko doon ñi ñi ko doon jiiñ sàcc ñoo dem ba gis ne ay la yéwén Karim mii kat nag sàccul kon nag lu mu doon laaj nañ ko ko defal mooy nañ nañ ko defal révision wu procès ñu enclenché cette révision loolu moo tey woon Karim Wade mu ngi ci yoon wi képp kuy espérer mhm. les oiseaux de mauvaise augure ñi nga xam ne dañuy espérer di yaakaar ne Karim Wade du ñëw mhm. nax nañ seen bopp Karim Wade dina ñëw ànd ak ñun campagne gagné réew mi defaraat Sénégal boole sénégalais yépp ñu demaat ci li ñu nekke woon ànd booloo jëm ci kanam. loolu Karim Wade dina ko def